rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokki téléspectateurs yi nga xam ni ñoo ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu nuyoob diine lislaam di jiite ci sunu nuyoo alxalifatul aam li taifatil muridiya cheikh muntaqa fayadaada wa nasara di ci teg mboolem xulafaaw yi nga xam ni ñoo jiite ruuxu tasawuf di nuyu mboolem al alamul islaamiya di leen ndokkeel ci saxru ramadan al mubaarak di ndokkeel suñu technicien yi nga xam ne ñooy jël waxtaan wi te ka nekk ci bopp bi di sëriñ maam Cerno ak mbokk ñu ma àndal ginnaaw bi ñu yàlla julli ci Mustafa alayhi salaatu wassalaam ñu dellu siwaat di leen waxtaanal ci benn tomb bu ñuy tuddee sakatul fitri ndax dañoo dëgmal waxtoom sakatul fitri moom la wolof di wax muddum koor wala muurum koor ñu toll ci fukki fan yi mujj ci weeru koor ginnaaw bi ñu màngee fukk yu jëkk ya màng yi ci digg bi yàlla nañ yàlla wërsëgal ñu màng yi nga xam ni ci lañu toll sakaatul fitri yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko sunnaal ni nga xamee ne alquranul karim dafa ñëw farataal sakaatul maal sun borom ni Mustafa alayhi salaatu wa xus min amwaalihim sadaqatan tutairuhum wa tudakkihim biha wa salli alayhim inna salaataka sakanun lahum wallahu samin alim suratu tawba yow muhammad sallallahu alayhi wa ngay jël ci alali jullit ñi ci képp ko xam ne am na lu mat ni na nga cay jël li ñuy tuddee sàkkaatul maal sallallahu alayhi wa ñëw daal di bi alquran farataale sakaatul maal moom mu ñëw daldi di sunnaal sakaatul fitri moo tax boo demee ci fuqaaw yi dañuy wax ni sakaatul fitri sunnatun waajiba faradaha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala kulli kabir aw saqirin dakarin aw unsa xurrin aw abdin min almuslimin sallallahu moo sunnaal sakaatul fitri ci góor ci jigéen ci mag ci ndaw ci asgor ci ab jaam ñoom ñëpp sakaatul fitri dafa nekk sunna waajiba ci ñoom sakaatul fitri ab jullit moo koy génne ab jullitit lañ koy jox bu ñu ko génnee hadis bi nga xam ni moo ko sunnaal abdullahi ibnu omar solo ko radiallahu taala anhu naka noonu it abbas solo na ko ibnu radiallahu taala anhu sallallahu alayhi min ramadan àla naasi saa min tamrin aw saa min shahir ala kulli muslimin xurrin aw abdin dakrin aw unsa min al mu ni sallallahu alayhi wa sallam daf ci weeru koor ci doomu aadama yi ci jullit ñi buñ ko dee génne nee na benn mu nekk saa ci tàndarma ndax xam nga réewi arab yi ñoom la fa gënoon a bari ci seen dund mooy tàndarma danañ ko wax ci kanam mu ne wala bokk saa ci saawu yonant bi sallallahu alayhi wasallam mooy àndaari yonant bi buñ nee saawu yonant bi sallallahu alayhi wasallam mooy ñeenti mudd yi mooy tolloog saawu yonant bi sallallahu alayhi mu ne wala bokk saa ci dugub ci képp koo xam ni ab jullit la di as gor wala mu di jaam moo xam góor moo xam jigéen moo xam mag moo xam ndaw ku mu ci ñooñu rekk sakaatul fitri war na ci yow liñ koy génnee nag mooy réew mu nekk la gën a not ci sa dund bu dee réew mu mel ni suñu réew mii di réewum Sénégal nga xam ne li gën a not ci sunu dund mooy mën nga wax ni diggante dugub ceeb mboq loolu moo gën a not ci seenu dund lenn ci fukkaaw yi sax dañuy wax ni même yow bu fekkee ni réew ma nga nekk la gën a not ci sa dund mooy ceeb bu yamamaay bii waaye yow yàlla dink na la wërsëg ba ceeb bi nga xam ni mooy ceeb bi gën a seer ci ceeb yi moom ngay dundee kon yow boo ca yeggee ci ceeb boobu ngay génne waaye la kulli xaal li gën a lëng mooy la gën a not ci dund waa réew ma booy génne muddum asaka ca loola nga koy génne xanaa loolu rekk li nga xamee ni boroom xam-xam yi mujj nañu li ëpp ci ñoom ñu bari d'accord nañ ci nga xayma ko génne ko xaalis bokk na ci ñi jëkk d'accord fii ci Sénégal Cheikh Ahmadou Gaynde Fatma radiallahu taala anhu moom bokk na ci ñi jëkk d'accord ci ñuy xayma dund boobu di ko génne xaalis ndax ñu ni mën ngaa jox waa ji ceeb kee jox ko ceeb kee jox ko ceeb day mujj di ko jaayaat di ko jënd ji loo xam ne ni moom lay dolli maanaam lu mel ni diwlin nag ya cay aju kon nag ah, bu ko ñii joxee ceeb ñuy jox ko xaalis bu ko defee mu daal di koy mën a jëfandikoo waxtu ñu ko war a génne wala sax bala ñu àgg ci loolu dañuy wax ni ki ko war a génne ci boppam moo di individuel bi dana ko génne ki nga xam ne sàmm njorandaay la yiliful kenn waaye tamit ki nga xam ne dafa yilif mbooloo dana ko génne moo di kenn ku nekk yaay seet sa bopp ña nga xam ni seenu dund yow la ko lislaam gàll ñoom ñëpp yaa leen di génneel asaka ak nuñ mën a toll bokkut ak nag koo xam ni dangaa warlu ab dundam waaye dundam waru la bu fekkente ni yàlla dogal na bu fekkee ni ci jamono ba jaam di am sang bi moo koy génneel ab jaamam naka noonu gone gu amul alal baayam moo koy génneel waaye bu amee alal mën na koo génne ci alalam ja bu fekkee nag ab jirim la ba tey ñu bàyyi ko fii maanaam bàyyam bàyyi ko fi waaye am na alal mënees na ko génne ca alalam waajur wu nekk moo koy génneel ak njabootam ndax dundu njabootam ci aw loosam la gàllu li fii masëruñ say doom nag bu ñu xësee masër ñu góor ña ku ci xës masër léegi dundam wàcc na la boo ko ko génnee lii rek danga koo def rek tatawux ci coobarewu rek sa doom ju jigéen ji li fi muy am boroom kër yaa ko ko war a génneel moom duñ ko aj ci mu mësër mën na mësër ba noppi amagul boroom kër kon dundam yow la war ba léegi yaa ko ko war di génneel waaye bu xësee am boroom kër nag léegi wàcc na la boroom këram moo ko war a génneel say soxna it ka saalika yaa leen ko war a génneel lu dul xanaa nga am soxna soo xam ni du am jullit kooku moom doo ko ko génneel ndax sakaatul fitri ab julit lañ koy génneel bu fekkee da nga am soxna soo xam ne dafa bokk ci yeneen diine bu boobaa doo ko ko génneel ab dundam yow la war de waaye doo ko ko génneel ndax lan du ab julit moo tax waaye bépp soxna boo xam ne julit la yaa ko war a génneel asaka yi muddum koor ginnaaw sa soxna la ndax ab dundam yow la war ci wan waxtu lañ ko war a génne mooy ginnaaw penk cal fajar ginnaaw penkatal fajar mooy bu ñu nee tey la kori ci fajar googu ci nga koy tàmbali génne loolu mooy li ñu sunnaal waaye nag ba teyit bu la neexee man nga ko génne jiitu ñaari fan ba ñetti fan ndax hadis bi nga xam ni naafee moo ko nett li imaamu malik imaamu malik nee na radiallahu taala naafi moom a nettali jële ci abdullahi ibnu omar mu ni génne sakaatul fitri ñetti fan jëkk bi daana ko génne ñaari fan jëkk bisub korite bi xam ngeen ni naafi moo jàngal maalik naafi abdullahi ibnu moo ko jàngal abdullahi ibnu omar bi sallallahu alayhi wa moo ko jàngal mu ni kon am nga sañ-sañu génne ko jëkk ñetti fan jàpp ñaari fan jëkk korite gi waaye nag li ñu gën a sunnaal mooy bu ñu nee tey la korite bu jant bi fenkee manam bu fajar si fenkee rek nga daal di koy joxe seeni borom jot ca lu lool nag bu fekkente ni danga bàyyi ba julli ji ba ñëw sallallahu alayhi wa sallam nee na loolee nga joxe tuddatul sakaatul fitri waaye ab sarax rek la tudd Ibn Abbas moom it addis bi mu ci nettali radiyallahu taala mu ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallama daf ni farada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama zakatul fitri tuxratan lil saimi min al laxwi wa rafasa wa tuxmatan lil masaakin wa man addaaha xabla salaati fa hiya sadaqatun maqbula wa man addaaha baxda salaati fa hiya sadaqatun min sadaqaat aw kama xaala radiallahu anhu alayhi salaatu wasalaam mu ni moom ibnu abbas sallallahu alayhi wa sallam moo farataal moo sunnaal sunna waajiba li ñuy tuddee sakaatul fitri ñu ni ko waaw lu tax mu ni li tax day mooy tuxratan li saimi mooy laabal aji woor ji aji woor ji ci luñ koy laabal laxwu yi nga xam ni defoon na ko ci biir koor gi muy dana ko laabal ci loolu waaye dana ko laabal ci li ñuy tudde rafas laxu mooy lañ mooy wax yu naccoo di ko yi nga daan wax ci biir koor gi moo xam eh, kaf jëme ci jigéen joo xam ne nii du sa maxram ak yeneen xeeti laxu yi daal wax yi nga xam ne daal amul benn ahamiya ci lislaam wax jooju nga doon wax te muy waxi caaxaan rek ak di reeloo nit ñi mu ni su boobaa loolu boo joxee muddum koor yàlla daf la ciy laabal ni ñuy laabale ab sir wala yére ci ndox mu ne bi des mooy rafas mooy nit koo xam ne daf daan beej ak soxnaam maanaam bi kaf ak soxnaam ci biir weeru koor wi rafas yooyu mu doon def ba tey loolu daf koy laabal ci eh, asaka jooju nga xam ne muy sakatul fitri boobu mu joxe loolu daf ko ci laabal mu ne beneen bi ci des li tax mu sunnaal ko bokk na ci mooy wa tu'matan lil masaakin mooy dañoo bëgg mu nekk maanaam ndimbal ñeel miskin yi ñi nga xam ni moom amuñu miskin ak faqiir dañoo xaw a wuute miskin yi mooy ñi nga xam ni bala ñoo taal cin dañoo tàllal seen loxo laaj te bis boobu ñu bëgg ñëpp nekk ci feet tax na ñu ni kon nañ ko jox miskin yi waaye boo demee ci sàkkaatul maal ba alxuraan di wax ku mu njëkk a tudd mooy faqir innama sadaqaatu lil fuqara wal masakin door a indi miskin ñu ni faqiir mooy koo xam ni lim am doyu ko te rus naa laaj alxuraan ni bu ngeen dee joxe asaka yi alal tàmbalee leen ci kooku waaye nag bu dee ci asaka yi sakaatul fitri moom miskin bi ngay jëkkee ndax miskin bi mooy ki nga xam ne moom faw balaa taal ci laaj te bu dee asaka yi alal mën naa dem laaj yi moom kee nag moom du mën a laaji muy faqir bi du mën a laaji rus na ko bu ñàkkoon bay lekk suufi du laaj yi kon alxuraan ni kon nag sàkkaatul maal tàmbali leen ci kooku waaye bu dee sàkkaatul fitri nag miskin bi la ñuy bañ muy wër di laaj bis bi nga xam ne jullit ñëpp dañuy feetu ñu ni kon jox leen miskin bi moom la ñuy jëkk a jox mun nag moom Ibn Abbas yonent bi nee na képp koo xam ne génne nga ko jëkk ngay julli ji te mooy bi jant bi bi fajar si xaree nee na kooku moo am dëgg dëgg yi sàkkaatul fitri mun waaye nag ku julli ji ba ñëw door ko joxe lam joxe ab sarax la ci sarax yi rek ab sarax la ci biir sarax yi rek doomu aadama yi alal ji ñu am dafa am ñu ñuy tudde almahrum am ñu ñuy tudde assail ñun ñëpp dañoo am ci alal yi doomu aadama bu nekk suñ borom nee na wallasina fi amwalihim xaqun maalum li saaili wal maarum ñun yàlla noo dogal seen alal yi yéen way woomal ñi yéen dong moomu leen ko am na ñaar ñu ci amub cër ñu ne ñaar ñan la mu ne almaarum koo xam ne man yàlla maa ko xañ ba mënta am lu doy mënta am lu ko doy am na sax am na xaq ci sa alal yow mi am lu la doy ak ki nga xam ne nii day laaj maa ko xañ ba muy wër di laaj am na xaq ci sa alal ji yow tamit kon nag kenn ku ni ni na ko jox xàqam weesu naa ci fi ma doon waxee sallallahu alayhi wa di wax saa saa bu ñu ko waxee ci xayma ñun ci suñu peese yi mën ngaa wax ni la ca gën a lemtu daal nga xam ne boo ko génnee génne nga saa su mat sëkk mooy ñaari kilo ñaari kilo yi ceeb daal wala ñaari kilo yi dugub su fekkente ni li nga génne mat na ko loolu mooy saahu yonant bi sallallahu alayhi wa mooy li ñuy tuddi mudd mooy nga def nii sa ñaari loxo ba mu fees ci koo xam ne nii ay loxoom dafa digg dóomu mu bañ a fees dell te fees fees bu yem nga sotti tibaat sotti tibaat sotti ba muy ñeenti yoon loolu boo ko doon seet xëy na dana war a mat deux kilo ci borom loxo yoo xam ne nii loxo yi réyul ba ëpp waaye tuutiwul ba ëpp su boo ko xelee rek dana matal dana war a mat deux kilos kon loolu mooy saa léegi nag ñooñu ñu xam ne moom lañ ko war a génneel am na tuuti ay sew-sew yu ci am moo di ki soxnaam ëmb te wasina gut te wasina gut soxna si dey sakaatul fitri war na ko waaye nag xale bi mu ëmb moom sakkaatul fitri waru ko diis ko ko génneel waaye des na ko génneel nag soxna si ci boppam bu fekkee ni yàlla dafa dogal xaleel bi juddu jëkk penkatal fajar jëkk penkatal fajar ayca doonte ci dañuy suñ digganteek penkatal fajar fanweeri minute moo fi des xale bi doog a juddu ayca asaka yi muddum koor war na xale boobu da nga ko ko génne waaleel yow waajur wi bu fekkente ni judd na jëkk penkatal fajar waaye bu fekkoon nag fajar daa fenk bu mu doog a juddu su boobaa wàcc na wóoru ko lu tax moo di bi asaka yi muddum koor di war fekk na dikkagut ba mu koy war ci alxuraan dane woon faman sayida minkumu saxra falye sumu képp kenn ci yéen kuy pemti pemti ba weeru koor ni penk ci kawam na ko woor foofu la fuqaaw yi sukkandiku ni kon nag ki nga xam ni bi penkitel asaka yi muddum koor di war fekk na ko ci kaw su muy dund kooku la war waaye ki nga xam ne nag daa war ba nuppi muy soog a ñëw ah wàcc na ko fi mu ne tey bu fekkoon te ni eh, nit ki bu fekkoon ni day judd rek woor kon bu ñu wooree bañ ni wari nañ mu a judd koor googa wàcc na ko donc ñu ni kon ki nga xam ne nag dafa juddu penkatal fajar kooku moom asaka yi muddum koor daf koy daal di war kasaalika bu fekkente ni nit ki dafa faatu kañ la faatu gannaaw penkatel fajar ginnaaw penkatel fajar moom it asakay muurum koor da koy war maanaam dañ ni taafeer weeru jàmm ñu ni suba la kori ñu dem ba fajar ji fenk penkatel fajar mu faatu asakay muddum koor dañ ko koy génneel du ko wàcc war na ko war ko waaye nag bu fekkoon ni daa faatu jëkk it ba tey penkatel fajar <laughs> kon ba tey wàcc na ko ndax ba muy war fekku ko fi kon su boobaa daf koy wàcc moo tax sax fukk aw yi di wax ni képp koo xam ne dafa faatu bàyyi fi ay doom bàyyi fi ay soxna bàyyi fi daal ñi war a dundal ñi nga xam ne ab dund ma ko waroon moom moom la waroon ci nga xam ne sari am ko ko gàll waxoon naa ko sànq ni ki nga xam ni moom yaa coobare wu rek di ko dundal lu mel ni ñun sëriñ daara yi nga xam ne ñun ñoo coobare wu rek di dundal suñuy donga donc yi seen asaka yi muddum koor warunu lu tax ndax seenu dund warunu waaye nag njaboot gi nga xam ne moom yow sari am moo leen gàll sa dund ñooñu yaa leen war a génneel muddum koor léegi bu fekkee ni soxna yi la muy doom yi yàlla dogal nag moom ñu dem ba penkteel fajar mu faatu lu tax mukk asaka yi muddum koor wàcc ko beneen bi ci des mooy njabootam ji mu fi bàyyi ñoom ñëpp daañu leen génneel asaka yi mudd bu koor ci alal jooju le naka noonu ba tey koo xam ne nii càggante moo tax génnewu ko wala ak ñàkk xamam ba penkteel fajar paase fu xaaw dañuy wax ni kooku kenn dootu ko obligé kenn dootu ko forcé ci mu génne asaka yi muddum koor danañ ko ko digal rek danañ ko digal ni ko sarxeel rek ndax bu joxeet sarax doo nga lay am waaye danañ ko digal ni ko nag sawaay na nga sarxe sarxeel waaye kenn dootu ko forcer ci tey nga génne asakay muddum koor ndax waxtoom weesu na par rapport ak bu doon nag sakaatul maal asakay alal asakay alal moom bu la waree te réew mi nga nekk lislaam di àtte da koy génne for force soo ko nangu wute génne bu boobaa état wu lislaam day yebal soldaar si ñu ñëw dal ci sa kaw dajji say bitig konte alal ji génnee ko asaka joxal la ci des boo bu buñ la ci rayee da ngay perte wuute na ak bu fekkonte ni asaka yi sakaatul fitri la ñu muddum koor